salaamaaleykum salaamaaleykum Sénégal man la Paco man la Paco Diallo depuis Paris maa ñëwoon di waxtaan ak yéen euh, ci mbirum Assane Diouf euh, mbirum Assane Diouf nag suñu borom mu ngi bëgg a andi xéwal lii dama leen koy may exclusivité la dossier la boo xam ni mu ngi koy nëbb dama leen koy may te bu ko weddee bu ko weddee na publier résultat yi. ci internet bi résultat bi xam nga lan la avant deux jours avant Magal, avant muy jël départ pour dem Touba deux jours avant Hassan Diouf dem na euh, dem na principal hôpital principal en cachette dem na hôpital principal di def prise de di def euh, analyse du moins ci ben docteur du tuddu tudd turu docteur bi nak ngeen baal ma bi mu defé résultat bi mu ngi don xaar ci yenen feebar daal ay affaire yoy non. mais lu ko mujjul lu mu mujj lu ko médecin bi mujj jox comme résultat dafa positif ci test sida sida dafa positif lu leer ni midi la len wax ni midi ku ko weddi ku ko weddi ku ma défier na jën la lamset bu bees jox Assane Diouf mu utiliser lamset bi après nit ki aussi utiliser ko une semaine après mu dem defi test mu xool bu dee jigéen la bu ko weddee na dem tëdd Assane Diouf une semaine après mu dem defi ji tes dana gis la ma ko wax ak ma ñàkk sama ndey li ma leen di wax nii bu ko weddee rek na publier dossier bi test bi mu deux jours avant muy quitter mangal bu ngeen sax période bobu vidéo ba am ñu def vidéo di nan woy Assane jo magget na kër na fi duguna fi febaron na sax mi wax nako. ko bi nak lool la lu leer la len di attention si mom ñi ko bon Fofu. du ma fa yàgg parce que voilà c'est son affaire kooku mbirum santé am la voilà